Euh, mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee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 wuyu si suñu invitation bi lee waa kay asalaamaaleykum jërëjëf madame Fall maa ngi lay gërëm yow itam si invitation bi mm-hmm. euh, di nuyu di la nuyu di nuyu bépp auditeur aussi képp ku ñuy déglu aussi à travers rajo bi jërëjëf Euh, sant ko gërëm ko ci disponibilité bi nga xamante ne montré na ñu ko à l'égard de notre invitation docteur dañuy tàmbale ci li nga xamante ne moom mooy sa spécialité à savoir euh, la santé publique xam naa sax du baat boo xamante ne dañ koy farataal di déglu tey boo ñu doon expliquer santé publique pour askan wi ñuy déglu euh, concrètement lan mooy la santé publique. di la sant léegi santé publique soo koy dégg benn spécialité la ci médecine maanaam dañuy def médecine ba pare mhm. ba am sa diplôme de généraliste nga def benn spécialisation de quatre ans mhm. ñu ngi koy defee institut santé et développement UGT bu nekk université Cheikh Anta Diop léegi santé publique daal soo ko déggee nu la ko mënee tënkal mooy lépp li nga xamante ni euh, euh, nga saytu ko pour xool lan moo sabab li indi feebar yi mhm. pour nga mun ko d'abord moytu li njëkk mooy moytu lay gën a digle ko faj léegi nga moytu ko soo ko mënul moytu nga xool nan ngay def ba nga xam ñi ko am mun nga leen jël en charge traité leen ba ba nu mu waree ba nga xam ne duñu wàll ñeneen kon santé publique ngir aar la aar ci feebar yi mais itam su feebar bi taxawee ñu xam nan lañ koy jëlee ba nga xamante ni kenn du ci loru wala ba nga xam dinañ dem ba éliminer feebar boobu si si askan bi. c'est mhm. plutôt approche préventive alors. waaw voilà loolu la maanaam daal euh, li gën a aar luy prévention prévention. moo tax a jóg santé publique mm-hmm. donc su xamee lan mooy problème bi lan moo ko sabab day dem si li ko sabab si li ko sabab lay dem agir ba nga xamante ni du egsi feebar bi du egsi si population bi. Euh, laata ñu yegg si spécialisation bi ñu bëggoon xam rek euh, ban euh, cursus ngay def balaa ngay spécialisé wu. waaw comme médecin yëpp. Mm-hmm. soo da ngay dem faculté de médecine da ngay def huit années foofu. def sa thèse soo defee sa thèse ba pare comme li la ko waxee nga mhm. dem defi spécialisation en santé publique pendant quatre ans mhm. spécialisation la boo xam ni dafa am comme ni ñuy wax théorie mhm. maanaam ay cours yooyu def mais am na tamit pratique parce que da ngay dem sur le terrain parce lu concret nga war a def da nga war a dem xooli naka la population yi di dunde naka ngay def ba nga xam di nga adapté yow li nga bëgg li nga bëgg euh, population yi def ko nga xool nan nga ko mën a te doo leen euh, doo leen nan lañ koy waxee doo leen euh, xër si seen culture si ñoom lu gëm mhm. maanaam da ngay adapté yow ni ngay euh, ni ngi di aaree par rapport a seen culture par rapport a seen am-am seen mën-mën mhm. ça veut dire que hôpital da ngay dem da ngay fay xaalis santé publique ñëpp la fi nekkal même ku amul xaalis itam day xool nan la ko mën a aaree euh, wala mu faj ko si feebar yi. Mhm. a waaw parce que santé publique moom soo def approche wu benn malade da ngay xool li gën a intéressé uh, communauté bi yëpp par exemple su la wóoree lii moo gën a baax pour benn malade mais pour communauté bi yëpp beneen façon moo baax li baax pour communauté bi yëpp ngay jël au détriment de lu mun a gën a baax pour benn malade euh, certainement amoon nga possibilité spécialisé wu ci yeneen domaine particulièrement lan moo motivé ce soir ba nga spécialisé wu en santé publique waaw xam nga rek bon yàlla moom mooy décidé bi ma defee médecine ba pare am naa beneen spécialité médecine du travail travail defoon naa médecine du travail mais a yàlla yóbbu ma ci structure publique yi nga xam ni santé publique la ñuy def. Mm-hmm. par exemple ci centre de santé la la doon liggéeyee. Mm-hmm. soo demee foofu nag tu vas que santé publique c'est différent de faj carrément di nga faj mais di nga dem tamit jege askan bi di wax ak ñoom di leen sensibiliser. Mm-hmm. ba nga xamante ni yow. maladie yi war a ñëw pour tel feebar dina wàññeeku. loolu mooy intérêt santé publique. Euh, tey dañuy dégg santé publique ak santé ba xam dafa am euh, différence entre appellation yi. Hmm. wala euh, les deux mots se valent. waaw en fait santé publique mën nañ ne benn pàcc la ci biir santé xam nga moom lu global la hmm. santé lu global la hmm. bien-être population yi ngay wut. waaw bien population yi. jox leen wérgu yaram léegi nag santé publique moom benn ci yooyu la boo xamante ne mun na tax nit ki atteindre bien-être mhm. parce que loolu mooy définition OMS mhm. c'est pas l'absence de maladie wala invalidité c'est pas que amuma feebar ak yooyu mais naa am bien-être par rapport ak man ni ma mel am mhm. su invalidité am bien-être par rapport ak ni mu euh, dañuy des euh, ci wàllu woowu ah, ñu ci spécialisation bi ba léegi dinañ farataal di dégg ñu naan euh, dañu manqué peut ay radiologue wala ay oncologue entre autres ñu bëgg xam rek ci wàll yi nga xamante ne foofu nga yëngatu ndax la santé publique fii ci Sénégal am nañu assez de médecins surtout que dañuy dem je suppose ci gox-goxaan yi à l'intérieur du pays pour mieux def seen pratique ci liggéey waaw kon comme niñ koy waxee rek parce que benn spécialité la si si santé bi euh, te soxla nañ ka partout moo tax dañoo gis au niveau du ministère de la santé mhm. y la majorité des médecins sont des médecins de santé publique soo demee itam si région yi région bu ne li koy diriger si wàllu wér yaram mooy médecin chef de région mhm. kooku tamit forcément médecin spécialiste en santé publique lay doon kii diriger euh, district sanitaire yi c'est-à-dire mun nañ Sénégal mi ngi eh, am fukk ak ñeent région médicale mhm. mooy région wu Sénégal région bu ne am na benn médecin chef de région mhm. soo demee si biir région yi am na région yu am ñeenti district am na yeneen yu am juróom benn juróom ñaar en fonction de taayu population ni population bi day mhm. parce que district bu ne itam benn docteur dafay nekk docteur en santé publique bu ñuy wax médecin chef de district bépp structure bu am foofu maanaam moom mooy yilif poste de santé yi fa nekk moom mooy yilif centre de santé yëpp yi fa nekk moom mooy yilif ba au niveau communautaire mm-hmm. kon ñoo ñëpp santé publique la ñuy def pour mun a xam nan la ñuy adapté euh, euh, lutte contre la maladie ci gox yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, docteur xam na ci seen euh, façon ni ngeen di liggéeyee di ngeen mettre accent bi ci communication ak sensibilisation li tax ma koy laajte mooy wax nga ko léegi soo demee ci benn gox di nga xool seen am am di nga xool seen mën-mën mais particulièrement di nga xool seen culture pour mën a adapté wu ñu bëggoon xam euh, ndax approche bi yomb na moo xam à Dakar wala à l'intérieur du pays. waaw loolu yëpp euh, xam-xam la. Mm-hmm. comme li ñuy wax loolu koy jàng communication il faut nga jàng ni ngay waxee nit nit ak nit mm-hmm. ak ni ngay waxee mbooloo yow ak mbooloo du mm-hmm. bokk. ak ni ngay waxee tey si soo buggee jot média de yi maanaam jot ñu bëre bëre bëre du bokk comme li nga wax il faut nga xool nooy adapté message bi par rapport ak kii lay déglu. parce que sinon du la déglu. mun nga wax tey ba suba du la déglu te par exemple pour xeex maladie dafa am solo que population bi jàpp ci maanaam appropriation bu ñuy wax mm-hmm. yow yow malade bi ngay xaar sa mu ñëw nga faj ko mais ki nga xamante ne mooy tax malade bi du egsi il faut mu nekk euh, membre de la communauté mm-hmm. maanaam kooku moom mooy mën a sensibiliser mooy mën a dem ci population nekk ah yow de soo defee lii ak lii ak lii yow tam di nga am tel feebar mm-hmm. tel feebar dina la dal te tel feebar su dalee kat du ko ne a ah, bon croiser les bras rek nga toog xaar yàlla dina ko ne ah del feebar su la dalee soo demee ba yëg yi da ngay dem fii dina ko mun a wax ban fan moo gën a jege si jumtukaay bu ko mun a faj dina ko mun a wax ah tel feebar kat day wér dina dalal malade bi kon c'est important sensibilisation muy wane ni feebar naam feebar am na mais am na nuñ ko mun a moytoo am na nuñ ko mën a fajee ba nga xam ne nit ki dina des ak euh, yaramam dina des ak xelam. Mm-hmm. waaw euh, il nekk seen partenaire euh, tamit ñu nekk ci santé publique boo doon liggéey ah. mm-hmm. liggéey ak ONG. waaw day am solo parce que ONG yi xëy na am nañu ñoom am nañ jumtukaay. Euh, xaalis bi ne la dama ñëw pour jàppale la si tel feebar mm-hmm. mais suñu excès yow yaa leen di wax daal leen katoon ne leen man kat fii ak fii ak fii moo gën a nekk sama problème fii la soit si euh, waxtaan ak population moo gën a nekk sama problème wala jumtukaay yi ñuy fajee peut-être moo war a gën a nekk sama problème wala Euh, mun a def ay plaidoyer ak yooyu au sein de la population moo gën a nekk sama problème mhm. donc en fonction de ça ngeen waxtaan fi souvent da ngeen di dem tëral seen plan d'action bind ko yëpp no ngeen xalaat ngeen nag am ay objectif itam. Mhm. parce que ONG bi su ñëwee jox la xaalis te xaar résultat. waaw wala mu ne la man mun naa ñëw jàppale si tel domaine parce que man spécialiste en communication la sama ONG. Mhm. nga ne ko kan man nag ci communication si lii ak si lii ak si lii nga ma war a jàppale. Mhm. mais balaa boobu doo ko bàyyi rek mu dem parce que moom xamul. xamul ban message lay passer pour la population da nga koy jël ba pare. nga formé ko nga expliqué ko. feebar bi expliqué ko nuñ koy moytoo. ak naka la population mën a def ba su feebaree mu jot fii mais léegi en fonction de formation boobu nga ko jox ci la lay mën a jàppale ba nga xamante ni yow li nga si wut maanaam maladie wàññeeku nga am ko fi. Euh, ngeen jege trop euh, la masse population bi tey xam naa ne ki li ngay liggéey euh, jot nga dem à l'intérieur du pays pour sensibiliser ci ay maladies ay feebar. boo ñu doon wax ndax mës nga dund benn anecdote nga jàkkaarloo benn population boo xam te ne dañu xaw a réticent euh, ak euh, jàngoro ndax mës nga dund lu ni mel bu dee c'est le cas naka nga def ba génn ci parce que je suppose que des fois niveau de compréhension yi bokkuñu. waaw loolu tout le temps dañ koy gis loolu médecin yëpp gis nañ ko. Mm-hmm. yow di nga am tay malade. Euh, nga ni ko ñëwal faj yow kat tel feebar moo la dal. mu ne la ah man kat mënuma ñëw parce que sama goro tey sama goro nee na ma man maama ni ñoo may faj te bi sama goro moo yor xaalis bi comme ni ñu wax situation femme dafa précaire Sénégal da lay wax ne man sama goro moo yor xaalis bi te nee na man fee laay fajoo parce que yow demoon nga sensibiliser gis nga ko communauté xam nga ne am na tel feebar mm-hmm. nga ne ko ñëwal sama sëy mu ne la man mënuma ñëw te kooku nag yow te comme li ma la communication de am cible primaire moom mooy sa cible primaire. Mhm. moom nga njëkk sensibiliser pour wax ka ah yow il faut nga faju mais il faut nga dem ci cible secondaire mooy ku nekk ci ginnaawam. Mhm. kii tax ki nga xam ne soo jaaree si moom moom dina ñëw faju ci. Mhm. kon c'est important aussi nga xam ay stratégie da ngay dem waxtaan ak euh, goro ba wala waxtaan ak jëkkër ji ne ko ah, yow kat sa jabar lii ak lii ak lii la la am. moom kat su ñëwee dinañ ko faj jëkkër mën na la ne aw ma wala dara. wala garab euh, bi wax la ko boobaa da nga ko naan ah nga xamal ko itam parce que population bëri xamul di nga ne dans toute structure sanitaire am na service social. Mm-hmm. yow bés boo amul moyen tey da ngay ñëw ñu waxtaan ak yow suñu xamee amoo moyen yow tey soo ñëwee hôpital doo doo fay dara. Mm-hmm. sa jabar dinañ ko faj dinañ ko jox garab. te euh, kon mu mel ni la communication bokk na ci seen euh, arme wala ci outil boo xamante ne vraiment moom ngeen di gën a mën a euh, utiliser pour jàllale message sensibiliser informer askan wi. waaw loolu am na solo parce que comme ni ma la wax rek mhm. population moom soo amul appropriation su dee nanguwul comme li ñu wax mhm. defe naa slogan santé loolu yàgg nañ ko wax a ñun ñooy faj mais population mooy combattre maladie maanaam ñun ñooy faj ñun prestataire de soins ñun ñuy faj ci ci ci bureau yeeg yooyu ci hôpital yi mais population mooy xeex feebar ba mu ba mu génn ci askan. waaw kon c'est il faut ñu xam il ñu comprendre il faut ñu xam lan moo baax lan moo bon ci feebar bi lan moo ci baax nan ngay def ba moytoo ko pour ñoom ñu mun la jàppale nekk ay relais c'est-à-dire yow li nga xam ci feebar bi ñoom ñu mun ko dem tasaare ko wax ko ci askan bi yépp. mu egg ba ci gox kaxaate mm. ah. d'accord euh, docteur euh, Tacko Ali Ba euh, ma fàttali ne mbokku auditeurs yi moom mooy suñu invité tey ci suñu émission bi di SOS santé moom nag mu nekk médecin spécialiste en santé publique waaye tamit nekk responsable suivi évaluation du programme national de lutte contre la tuberculose xanaa dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy beneen point bi jëm ci li nga xamante ne moom mooy boobu beneen casquette bi nga xamante ne am na ko tey mooy docteur Tako Ali Ba dañuy dégg tuberculose tuberculose mu nekk euh, xam naa sa domaine de prédilection tuberculose euh, mooy lan. Euh, jërëjëf madame Fass dinaa sawar si tontu question boobu. Mm-hmm. tuberculose benn feebar la boo xam ni dañ koy wax pandémie maanaam fépp la am si àdduna bi. Mm-hmm. du si ñun rek la am. comme li ñu wax Europe sax Europe sax am na fa as tuut Europe am na zone yoo xam ñoo ko ëpp Euh, Sénégal soo demee ba Europe de l'Est ñooñu ñooñu ëpp fuuf tuberculose ak forme yu yi nga xamante ni moo moo gën a ës léegi tuberculose soo ko déggee benn feebar la boo xam ni xëtër yi lay jàpp moom su ñëwee day jàpp sa xëtër yi daf fay dund te puisque microbe bi dafa bëgg air air lay dund moo tax mu dem taamu xëtër yi xam xëtër yi fa ñuy noyyee mm-hmm. air bi nekk sa koor yëpp fa lay amagasiné moom su duggee sa yaram day ñëw si kaw xëtër yi lay nekk soo noyyee rek mu dem placé wu ci kaw xëtër yi su fa nekkee nag lu yàgg fajoo ko day indi sakkat mhm. ku ne xëtër ne sakkat ku am grippe jàpp na ku am bronchite da ngay sakkat xëtër ci ñam mooy mooy sakkat lool moo tax itam tuberculose euh, comme sakkat lay feeñee feebar boo xam ne day dugg sa def fa ay lëgët soo ko fajul day am ay complication day dem ba soo sakkatee da ngay génne deret mhm. parfois génne deret bu bëri boobu sax mooy faf rey askan bi ñi nga xamante ne dañ ko am li ci ëpp génne deret boobu moo leen di di faat soo toogee fajoo ko nag noonu lay euh, demee léegi beneen signe bi ñu am tamit ci tuberculose mooy que ni que puisque infection la infection foo ko dégg même infection yëpp dañuy ànd ak yaram bu tàng. Mm-hmm. kon tuberculose saqat la bu ànd ak yaram bu tàng puisque da ngay saqat day ànd xartandiku di ànd ak xartandiku si biir xartandiku nag si lay microbe bi di nekk moo tax. ni muy wàllee itam xaw ma ndax mun na ma wax léegi wala ma xaar waaw par rapport ak ah si signe yi signe comme li ma la wax saqat lay doon jeex da lay muusal parce que bi su duggee sa yaram mm-hmm. parce que doo lekk di ëpp anorexie la doo lekk mm-hmm. doo mën a naan da ngay amaigri da ngay am altération da ngay tëdd rek da ngay tëdd da ngay bu bëre soo saqatee da ngay tëfli mm-hmm. te euh, diggante ngoon da ngay amaale tamit euh, yaram buy da ngay am fièvre mm-hmm. mais da ngay am tamit euh, nan lañ koy ngay am sueur sueur guddi guddi gi surtout da lu bëre dana ñaq lu bëre su ngoon si ñëwee jëm guddi mm-hmm. yooyu daal mooy si suñu tuberculose yi si ëpp mm-hmm. mais ndax ndax euh, neex na détecté parce que apparemment euh, bu weesoo sëkkat bi yaram buy tàng ak ñàkk euh, ñi pali dañ koy farataal di am xanaa sëkkat bi moom mooy def différence bi ndax jàngoro bi di tuberculose neex na diagnostiqué waaw tuberculose ñun dañoo jéem a xalaat li nga xamante ne dina ko tënk lu gën a yomb ci population mooy Euh, saqat boo xamante ni dafay continuer dafa persistante mm-hmm. c'est-à-dire du saqat benn fan du ñaari fan mm-hmm. soo saqat fu ñu gis nit boo xam ne day saqat lu ëpp fukki fan ak juróom dañuy njort ni jusqu'à preuve du contraire tuberculose la mm-hmm. dañ laan demal ci structure bu la gën a jege poste de santé wala centre de santé ñu defal la analyse u xartandiku yi du toflit yi parce que toflit amul microbe ci xartandiku yi il mu xartandiku ñu xool liquide euh, yu jugee ci bronche pour xool euh, feebar bi. d'accord euh, tey boo ñu doon wax euh, transmission bi maanaam naka lay wàllante. Ah, euh, ni muy wàllante yomb na nit ku am tuberculose soit muy wax wala muy saxat hmm. wala muy nan lañ koy waxee tisoli tisoli bi moo ëpp microbe. Hmm. koo dee ku tisoli moom peut-être mun na génne jusqu'à ay milliards de bacilles. ci benn rek. Mhm. te loolu yow soo leen nekkee comme fi ñu nekk nii endroit boo xam dafa fermé. Mhm. dafa fermé c'est très dangereux. Mhm. nga taal sa clim. air bi circulé même air bi moom mooy brassé wu à longueur de journée te microbe boobu oyof na oyofaay boo xam ne du comme Covid Covid microbe bi day wadd ci suuf si waaw parce que dafa xaw a diis. waaw moo du poids poids moléculaire am dafa xaw a diis euh, kii nag moom tuberculose dafa oyof tellement su ma waxee wala ma saqat day suspendre ci air bi mm-hmm. mun naa fa dem dugg dellu ci tëj sama bureau demaat vingt quatre heures mi ngi ci air bi saa ma ñëwee nooyi kon mun na ma wàll facilement mm-hmm. moo tax il faut mm-hmm. tamit ñu ubbi di aéré ci bureau yi ah di bàyyi naaj bi di dugg ndax microbe tuberculose itam naaj la gën a bañ rayon solaire dañ koy rey rapidement si naaj bi di dugg muy ngelawal ngay ubbi comme ni ñu wax aéré ngay aéré di ensoleillé di ventiler ngelaw bi di ëpp bu baax boobu tuberculose du fa yàgg même ku ko am soo nekkee moom du la du la wàll. docteur euh, su ma la comprendre bu baax kon tuberculose bi muy wàllante gaaw na ndax bu fekkente ne ci tuflit la mën naa ñëw dugub benn cinq minutes ma ko euh, te du ma ci rendre compte parce que aw ma benn présenté wu ma dara loo xamante ne peut-être dinaa njortu ko ne kii am na euh, feebax bi. waaw comme ni wax wàllaate bi gaaw na gaawul. il faut nga nekk nit ki euh, diiru disons vingt quatre heures maanaam ku ñuy wax contact étroit maanaam ci am risque am tuberculose dañ naan ci fanaan ak nit ki peut être vingt quatre heures fanaan ak moom ci néeg moo tax fanaan bi aussi tamit c'est dangereux parce que yow guddi sooy nelaw sooy saqat doo ko yëg kon doo protégé wu te am na ay moyens yoo xam ne soo ko defee di nga tax li ngay saqat comme covid bi rek soo amee masque soo tegee sa loxo au moins microbe bi du dem ci ci nit ki. Mhm. comme li ñu wax koy liggéeyal moom c'est sûr que def ngeen lu ëpp vingt quatre heures. Mhm. soo nekkee tailleur ci atelier kenn di fa saxat mu saxat ay ñetti fan ñeenti fan fekk tuberculose la mun na wàll ñu muy liggéeyal. Mhm. usine itam. dafay bëre parfois parce que loolu la yenn zone yi nga xam ne euh, dafa am promiscuité ñi nga xamante ni macha allah seen loxo peut-être jotul seen ginnaaw nga xamante ni dañuy dëkk à plusieurs si biir chambre ñooñu itam tuberculose da leen di gaaw di di dal. parce mm-hmm. que askan wi eh, docteur am na kon loo xamante ni umpale nañ ko parce que fii eh, dañuy farataal di déglu peut-être que ay présenteurs sociaux la wala nit yi ñoo am eh, façon de faire boo amee tuberculose on a dañ lay weddi xaw ma ndax euh, donnée bi changé na yow sa domaine de prédilection la certainement di ñu ci gën a mën a gindi mais il fut un temps soo amee tuberculose dañ lay ber da ngay lekk à part dangay naan à part daanaka nit yi sax dañ koy tuddee la maladie de la honte ba boo ko amee sax ruus nga dem kër docteur ñu ne la yow tuberculose nga am te pourtant yaa ngi wax ne cohabitation bi da koy gën a favoriser tey ndax euh, askan wi am nañu la bonne information parce que comportement yi ba léegi bàyyiwuñ ko waaw loolu nag chaque jour ñu ngi ciy xeex ñu fi xeex ñu ngi jéem a def jéego yu bëre. Mhm. par rapport ak sensibilisation bi parce que xamul mooy boddi nit. Eh. yow yaa ngi euh, yaa ngi daw nit ki parce que da nga xam ne dafa am tuberculose mais ki ngay daw tey kooku bër ci démb ak bër ci waat ñu woon ak feebar bi. te dawoo ko woon kon su la waroon wàllu na la boobu mhm. te li ñuy euh, li ñuy wax li ëpp solo mooy ku am feebar bi faju Euh, ki am tuberculose su fajoo su matee fukki fan ak juróom dootul wàll presque kenn mhm. kon nag li am importance mooy euh, ñu tàmm am suñu culture xam ni dañu war a suñu yeewoo dañu war a ubbi rido yi xëcc lumière dugg parce que yow xamoo ki ka am ak ki ka amul mhm. te Sénégal comme ni ma la wax dëkk la boo xam ni tuberculose mi ngi fi chaque année ñun minimum minimum dinañ am ay treize mille cas de tuberculose yu bees waxuma yi amoon avant mhm. yu bees yi ñu détecté loolu moo lay wan ne chaque chaque année dañuy egg treize mille parfois plus. Mm-hmm. donc c' important te ñun comme ni ma lay par rapport ak treize mille bi ñu ngi xaar chaque aussi ay vingt mille cas kon ça veut dire que waaw ça veut dire non chaque année euh, yow treize mille nga gis. mais kon am na sept mille yu nekk ci biir ñu gisugul di continuer di di di wàll ñeneen ñi euh, ñu ñu ñu ñu taxaw foofu yow da nga da da nga da nga ma xaw a dévancé mais dañuy yegg ci ci loolu nga wax da ngeen di am treize mille officiellement mais jàpp nañ ne sax mën na ko ëpp mais naka ngeen di def ba ngeen vraiment mën a euh, recenser yeneen sept mille yooyu ñu xamante ne dañuy mën naa ne dañuy disperser déversé dans la masse waaw comme li ma la wax ñun dinañ faj dinañ tëral itam ay ay stratégie maanaam politique euh, santé sur tuberculose euh, programme national de lutte contre la tuberculose moo ko yore mm-hmm. chaque année day saytu day xool li mu am ci feebar bi mu xool yan problème la euh, ñii di faj rencontré mu jéem a xool yan action yan lan la war a def ba nga xamante waaw maladie mun na dem ba ba wàññeeku. Mm-hmm. waaw loolu am na si solo. Mm-hmm. Euh, docteur euh, Ali am na ay feebar yoo xamante ne des fois dañu ne dafa héréditaire ñu ne dafa génétique ñu ne euh, prise de poids moo koy favoriser ak yeneen ak yeneen ñu bëggoon xam ndax spécifiquement tuberculose dafa am ay doomu aadama yoo xamante ne dañu nekk ay ay personnes à risque de manière de fait en fait. waaw loolu itam am na comme si feebar bu ne rek comme ni ñu ko waxee euh, personne a risque yi ñu am tuberculose bëri na soit c'est parce que da nga nekk à risque parce que yaram moo néew kàttan lépp lu mun a indi néew kàttan nag mun na favoriser tuberculose bi ci ëpp mooy nga am jàngoro VIH bi soo amee jàngoro sida tuberculose da lay dal nee nañ soo jëlee ko am sida si jiiru dundam un sur deux yu am sida am sida dinañ def tuberculose c'est-à-dire cinquante pour cent de malchance la am mu def tuberculose ci giiru dundam mm-hmm. parce que soldaar yi xeex feebar yi ci yaramam ñoom ñoo néew kon nag euh, loolu la loolu mooy pour VIH diabète itam day indi baisse de l'immunité parce que yow dootoo amati kàttan trop mm-hmm. loolu tamit day favoriser tuberculose mm-hmm. waaw ki am drépanocytose moom tam baisse de l'immunité la day favoriser tuberculose ak itam bi ñuy fàtte bi sunu feebaru jamono mooy stress ku da ngay gaaw a grippe seetlu nga ko sax grippe itam moom noonu la mel opportuniste la c'est-à-dire moom fi nga xamante ne yaram bi néew na kàttan rek fa lay ñëwee noonu la tuberculose bi itam mel soo dee sa kàttan dafa néew da nga stressé ba nga xam ne sa soldaar yaram période boobu amoo amoo si lu bëre alors tuberculose facilement mun na la dugg mm-hmm. loolu mooy indi ñi nga xamante ni am nañ parfois daraja am nañ xaalis tuberculose di leen dugg. waaw d'accord euh, euh, euh, kon mu mel ni ñi am tuberculose docteur dina bëri ndax wax nga ko feebaru jamono stress moom daanaka ko gis muy dox rek mu wax ko mu waxu ko wala mu correct am na loo xamante ne da koy tracé kon stress moom nit yi war nañu xeex bu baax a baax ci moom ndax apparemment moom mooy la porte d'ouverture par rapport ak beaucoup par rapport ak jàngoro yu bëri. waaw ah stress moom mi ngi noonu dalay affaiblir lu affaiblir yaramu nit rek lu dugg kon daal ñun il faut ñu moytu duñ ne mën nga dund sans stress c'est pas possible parce que stress bu tuuti itam baax na pour aider la ngay atteindre say objectif mais nga dund stress ba nga xamante ni dafa affaiblir sa yaram ba nga xam lu ñëw dalee dal loolu nit yi mën nañ ko manqué. Mm-hmm. waaw beneen itam euh, xëy na si cause yi ma woon a wax facteur de risque mm-hmm. euh, mooy ñi nga xamante ni dañoo malnutri seetlu nañ ko xale yu bëre yu am malnutrition. soo deful attention tuberculose danañ dugg parce que malnutrition tamit day néewal kàttan mm-hmm. li koy indi mooy lekk ko lekk bu doy mm-hmm. xëy na yaayam jox ko wala papaam jox ko parce que amul moyen mais xëy da koy am ci mm-hmm. am cancer itam tuberculose da lay yomb da lay affaiblir xam nga ni itam day nekk cause euh, de de tuberculose beneen cause bi ñu gis itam mooy ñi xam ne surtout dañoo dëkk endroit boo xamante ne dafa am promiscuité maanaam fu ñu dëkkee dafa xat dafa lëndëm nee naa la naaj bee koy rek mhm. li ëpp yenn quartier yi soo fa duggee du am aération trop dañuy dëkk si néegi yi lëndëm yoo xam ne bëccëg sax da ngay taal lampe xam nga loolu microbe bi duggee day am ah, lu ko neex mhm. day dugg si humidité day dugg si fu lëndëm nit yu bëri kenn am na tuberculose mu ngi dëkk quinze personnes day wàllu quinze yi mhm. hmm? Euh, kenn ngi am euh, tuberculose dëkk deux personnes du wàllu ñu bëri peut-être deux yooyu lay wàll. Mm-hmm. kon loolu am na ci importance léegi peut-être ma dellu ci defe naa yaa ngi doon wax ci stigmatisation. Mm-hmm. stigmatisation bi c'est important ñu ñu moytu ko. Mm-hmm. parce que soo stigmatiser nit dafay ragal a faju loolu moo indi ci population ñu bëri dañuy ragal wax may saqat depuis lu yàgg man dañuy toog. di nëbb saqat bi waaw non dañ lay nëbb mhm. yow doo xam ni kii dafa am sax tuberculose parce que du la ko ñemee wax mhm. te ku partagé wul ak yow ba nga mun ko jàppale du tane premier parce que am na problème psychologique amul ku mu waxtaanal ci feebaram kon déjà même soo koy jox addinay ta taneem du yomb c'est important itam mu xam ko nga xamante ne xam na ne tey su ma amee tel feebar tel nit dina ma jàppale gunge ma mhm. dina sawar ci faju bi dina sawar te comme ni ma la wax ku faju fukki fan ak dootoo wàllati alors que avant ñu koy xam yow toog nga peut-être ñetti weer ci askan bi yaa ngi am feebar kon feneen wanoo wàll euh, période boobu nga koy nga koy wàllee. Mm-hmm. beneen affaire itam mën nañ ko wax ni que euh, tuberculose il faut nit yi xam ni du bokk lekk du bokk yére mm-hmm. du bokk kaas même bi ngeen naanee moo koy wàlle parce que comme ni ma la ko waxee toflit yi amul doomu jàngoro mm-hmm. xartandiku yi moo am doomu jàngoro li ngay moytu mooy kuy saqat ku am tuberculose dafa wara a sol masque d'habitude masque chirurgical yooyu lañ lay jox sax soo demee si structure yi jox la ko pendant période bi ñu xalaat ni biir boobu di nga wàlle nga koy takk comme ça guddi gi soo tëddee nga takk ko doo wàlle ñi nga nekkal wala soo amul masque nga jël mouchoir agité uh-huh. soo ko tegee nii sa nag sa booru bakkan doo wàll uh-huh. beneen bi mooy sooy tëfli bi soo dee ànd xartandiku uh-huh. li gën mooy nga bañ tëfli nii si air bi fu ne xam sa rafetul li ëpp solo mooy nga jël benn kopp def ci eau de javel moom njàngoro yëpp lay rey soo defee eau de javel di si tof li di ko tëj su amee tu tuuti nga dem tuur ko si sas bi xëcc au moins loolu dina tax euh, doo doo wàll ñu bëre. d'accord euh, justement ñu aborder li nga xamante ne mooy jëm ci wàllum traitement bi une fois que ñu def diagnostic bi ba gis ne kii dafa am euh, jàngoro bi di tuberculose traitement bi ci lan lay porté wu. waaw faj bi yomb na parce que faj la boo xam ne il faut ñu xam ni askan bi du ko fay faj bu gratuit la boo xamante ne am na fépp gox ko xaat yoo dem comme li ma la wax si poste de santé yi nga xam ne infirmier bi koy dirigé am na garab yooyu ci mm. sa koñ boo dem yow tey structure boo dem dina la wax yow fii moo gën a jege demal di fa jëlee garab yi doo fay analyse bi koy euh, diagnostiqué mooy bi waneen da nga ko am doo fay analyse yi def contrôle bi ndax fin deuxième mois di nga def analyse cinq cinquième mois de traitement di nga def analyse cinq sixième mois di nga def et traitement bi il faut nit yi aussi xam ni si juróom benn weer lay dem mm-hmm. juróom benn weer ñaari weeru njëkk yi lañ lay jox garab yu am kattan mm-hmm. yeneen ñeenti weer yi ñu wàññi ci garab yooyu ba mu des ñaar kon na di la ko jox moom ngay continuer si mois bi mm-hmm. mais malade bi moom si jëlee garab bi fukki fan juróom day mel feebaratul loolu mooy danger bi nag waaw soo jëlee garab fukki fan ak juróom symptôme yëpp dañ nga ah. commencé lekk bu baax ñu lay pesé ngay gagné ay kilo kenn doot la xamee wéroo yow soo foogee ni da wér rek wala tayal si faj bi loolu danger bu mag la parce que boobaa yow ñam nga garab yi microbe bi gis nañ ko mais yëpp deewaguñu parce que il faut six mois pour yu gën a ci sa yax tuberculose microbe bi du yem rek ci poumon bi de. day dem ci day law fépp. day law day law fépp day dem ci deret bi daal di wër yaram bi yëpp mën na dem ci tissu yëpp ba ci yax bi te yax dafa neex a dafa naqaree faj. parce yax bi moom i faut nga dem. xaar lu yàgg pour garab bi egg foofu kon c'est obligé kon ne traitement bi ba six mois sinon ko bàyyee rek dans quelques mois wala dans un daf lay dalaat mm-hmm. da dalaat nu mu ñëwee mooy gën a bon parce que bu ëpp bi ngay am mm-hmm. parce que microbe bi na garab yooyu sama la ko joxaatee tey du la fa mm-hmm. te dem jëli garab boo xam ni dina defaat lu minimum neuf mois jëm onze mois am na ñuy def sax ñaari atu traitement euh, euh, kon su ma la traitement bi euh, du six mois rek la mun na dem au delà de six mois par rapport ak degré bi wala dafa am ay type waaw dafa am euh, ñaari type mën ko tënk ci ñaari ñaari euh, pàcc mm-hmm. dafa am tuberculose bu simple bi maanaam bi nga xamante ni du loret mooy tuberculose simple bi soo ko fajul daf lay rey mm-hmm. mais soo boobu soo jëlee garab juróom benn weer da ngay wér péng te ngay wér péng te keneen ku ko am doo ko mm-hmm. doo ko amaat kon boobu mooy forme boobu ëpp nag boobu moo ëpp Sénégal boobu laal doon wax treize mille hectares sinon suñ ko fajulee bu baax wala nga daggal faj bi wala leneen ak yeneen euh, problème am boobu da ngay dem ci forme tuberculose bi ñuy wax multirésistant maanaam garab yi doon faj ci six mois boobu dootuñu la mën a faj daf ko résistance loolu la ñuy wax résistance mm. te boobaa ci obligé jël yeneen garab yu bëri doole mais yu bëri itam effet secondaire mm. kon déjà faj bi dafa metti mm-hmm. ba pare faj bi day yàgg minimum moom laa lay wax boobaa su la dalee dina dem neuf mois jëm onze mois parfois nga dem deux ans te boobu le malheur est que bés ko amee yow soo toogee ku musul am tuberculose forme bu ës boobu la lay wàll. waaw moom doo jaarati ci forme bu simple bi daam la am su lay wàll suy saqat wala suy ci la lay wàll. waaw. Euh, docteur ñu bëggoon xam rek euh, euh, traitement bi am na ñoo xamante ne wax ko bu ñu jëlee quinze jours ay médicaments xaw a sentir que ñu ngi reprendre forme dañuy bàyyi le traitement tey euh, ku war a suivre un traitement boo xamante ne dafa war a def durée de six mois mu interrompre ko à l' espace de quinze jours ndax amul ay conséquences moom particulièrement ci wérgu yaramam mais conséquences yi eh, bien sûr par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy environnement waaw euh, madame Fall question boobu am na solo mhm. ci jël garab comme ni ma la waxee commencé faju jékki-jékki bàyyi déjà dina la ndax parce que di nga tane mun nga tane ay weer ci kanam mhm. mais ni ta tane apparence la rek ci sa jëmm la nii mhm. mais waaw mais ci biir yaram bi microbe bi muy gën a multiplier parce que microbe bi moom chaque vingt quatre heures day yokk mhm. chaque vingt quatre heures day multiplier yow soo ko soo arrêté traitement bi feebar bi day gën a garaaw sa yaram maanaam pour mu rey la day gën a yomb ci yow alors que feebar la boo xam mën nañ ko faj bu gaaw ci six mois mu mu wér kooku itam problème la ci askanam parce que comme li ma la waxee am na feebar bi xaw na tane euh, mboq mi jàpp nañ ni wér na mi ngi defaat fépp mi ngi dem fépp mi ngi dem ci marché yi mi ngi dem ci liggéeyam mi ngi dem fépp kooku itam day wal day continuer di transmettre maanaam seen bi tax feebar bi di continuer ci askan bi chaque année ñuy gis treize mille cas yooyu day gën di di yokk mm-hmm. kon am na solo itam malade bi xam ne su feebaree tuberculose faj bi fajuwul ngir moom rek dafa faju aussi ngir yaayam bi nekk si kër gi ngir papaam ngir maamam ngir doomam surtout doom yi nga xam ne juróomi at la am wala lu ko yees mm-hmm. ñooñu moom feebar su leen duggee li si ëpp da leen di faat mm-hmm. kon c'est important ki ca am mu gaaw faju pour aar doomam yu ndaw yooyu si kër ga bañ nañ ko sax ba nga xam programme bi puisque doom yooyu dañ néew kàttan ak ñi am euh, VIH yi dañ leen di jël benn ci garab tuberculose yi puisque dëkk nañoo fi ka am di di leen ko jox ñoom tam pendant minimum six mois ngir aar leen ñoom ci euh, wax nga ko xale yi nga xamante ne ñoom ñooy tuut tonk yi xam naa ñoom ñooy gën a fragile euh, c'était juste pour aborder beneen question bi à savoir ndax la tuberculose dafa nekk jàngoro boo xamante ne c'est tout le temps jàngoro boo xamante ne li muy faat ci li mu doomu aadama bari na. waaw tuberculose bëri nañu muy faat ci doomu aadama par exemple déjà mun nañ ne ci monde bi bëri nañu muy faat mun na faat ba ay millions wu personnes yu ëpp loolu ci monde bi waaw Sénégal Ndiaye atum ren deux mille vingt et un ñun suñu chiffre yi ñu remonté faat na ba quatre cent seize personnes am sooy compter benn fii na quatre cent kon loolu moo lay won ni feebar la boo xam su dee faj bi normal te quatre cent seize yooyu mu faat ñun ñu gis mooy ñi ñëw faju kon ñi toog ci euh, kii wuñ fajuwuñ peut-être faat ëpp ci biir askan bi te te ñun gisuñu leen. Mm-hmm. Euh, mu euh, ko jàppee waaw comme ni ñuy wax priorité la rek ci santé publique bi comme nu Palu nekkee bañ na ko ba Sénégal ñetti maladie yooyu yi nga xamante ni day wàllaate ñooñu la def priorité muy bu Palu bi. Mm-hmm. ci bi muy bu VIH bi maanaam sida ak bu tuberculose ñett yooyu ci maladie yi wàlle ñoom la Sénégal def priorité am na yeneen maladie nag yoo xamante ni du ñu wàlle mhm. comme ay diabète ak yooyu yooyu yooyu tamit ci priorité état la nekk mais ci yi wàlle ñett yooyu muy pale palu mhm. muy euh, tuberculose muy VIH ñooñu la ak Sénégal ne da koy xeex il faut mu xeex leen éliminer leen ba nga xam ne à l'horizon deux mille trente cinq incha allah day génn Sénégal génn nag ça veut dire que kenn dootu ko amati mhm. mais dina wàññeeku néew kàttan boo xamante ne kenn ku ko am du boo moytul dootoo wàll keneen parce que tey kenn fi keneen ba fongale bi peut-être leneen. Euh, mu mel ni sensibilisation bi war nañ ci gën a mettre l'accent parce que bu ma la euh, suivre bu baax euh, li muy ñuy wax ak lim yi nga xamante ne moo am dafay am différence particulièrement ci lim bi xamante ne joxe nga ko léegi taux de létalité bi ça tourne peut-être pourcentage bi bëri na du ko xam ne li nga wax ni quatre cent ci une population de dix-sept te ñu bëri dañu jàpp ne tuberculose nekk na jàngoro boo xamante ne am na ñoo xamante ne dañu jàpp ne existé foofu aussi ndax jotul ñu vraiment xamal askan wi ne euh, feebar bi mu ngi fi te tey la gën a am doole d'autant plus que day rayaati. waaw feebar baa ngi fi am na doole mais il faut que itam euh, askan bi bañ ko ragal itam mm-hmm. parce il faut nga bañ ko ragal dem faju à temps suñ ne 416 ba jël ko ci 13 millions yi valeur am quatre pour cent la la rey si ñu am tuberculose ñu ñu gis mais quatre cent seize du lu néew comme lañ ne lu faat benn bakkan rek mhm. dara la day wane ni population comme li nga wax sensibilisation dafa war a jaar yoon mhm. comme fii Sénégal euh, ONG yi nga doon tudd léegi mhm. yaa plan international bu am ay relais ay relais communautaire ñu dugg ci askan bi ñu ànd ak bàjjenu gox yi dem di sensibiliser gox goxaat yi di leen wax ni que soo saqatee lu ëpp fukki fan ak juróom demal ñu xool ndax du tuberculose su dee tuberculose dañ la koy faj te doo fay dara. Mm-hmm. kon ñooñ itam seen liggéey am na solo ñooñ dina tax ba askan bi xam ni feebar bi am na fi su ma ko amee dem dinaa tiit parce que da am feebar. Mm-hmm. mais war nga xam itam ni que am nga espoir soo fajoo da ngay fee da ngay faju wér te soo wéree da ngay mën a dem dundal sa askan euh, toppatoo leen comme il faut. Euh, soo déggee may gën a insister ci communication bi dañu am benn habitude tant que amuñu journée mondiale duñu faratal di dégg maladie ah bokk na ci peut-être diabète bokk na peut-être ci paludisme bokk na peut-être ci tuberculose bi nga xamante ne tey moom mooy suñu sabat émission tey aussi ndax euh, xawul euh, jot ñu xaw a changer tuuti stratégie maanaam ni ñuy communiquer ba jot bi journée mondial bi ok war nañ ci communiquer mais en dehors de journée mondiale bi ndax jotul ñu amal peut-être ay porte ouverte ay journée de sensibilisation ngir askan wi gën a mën a ñeme waaye tamit xam euh, lan moo leen di xaar bu leen jàngoro bi dalee. waaw loolu madame Fall loolu am na solo kon yéen il faut ñu jege si leen leen ñu xelal yëpp xalaat nañ ko mais xam nañu itam journaliste yi war nañ ñu mën a jàppale aussi ba nga xamante ni dinañ ci waxtaan ak bu baax askan wi parce que média de masse dafa am solo ñun si tuberculose dañu gis ni di gën a fan la nit gën a jëlee information bi ci rajo yi la surtout rajo communautaire yi mm. fa la population bu ñu defee enquête ci population si lañ gis ni ku xam Tibes la ci rajo boobu nga ko déggee mm. comme li ngay wax en dehors de la journée mondiale mm. bëgg nañ def sensibilisation bi mais comme li ñuy wax lépp dafa am coût sensibilisation itam il faut nga am moyen moyen ñoo doyul trop ba nga xamante ni dinañ le temps di occuper média yi euh, kii moo xaw Euh, li ñu am li nga xamante ni moom la réserver pour communication mm-hmm. mais yaakaar nañ ak euh, perspective yi ñëw parce que si ñëpp jàppee su si organe de presse yi jàppee su si ñëpp jàppee population dinañ gën a xam feebar te ku ko xam itam di ko xam noo koy moytoo mm-hmm. parce comme li ma la wax rek aar fagaru moo gën faju aar ko balaa muy egsi moo gën nga xaar ba feebar di faju mm-hmm. Euh, aar euh, fagaru moo gën mais aussi euh, en dem en dehors de traitement bi nga xamante ne certainement dafay reposer wu ci mooy prise de médicament bi tey dinañu vacciner ab tout tànk ngir aar ko ci jàngoro bi di tuberculose tey bu ñu doon wax ci vaccination bi comme dafa nekk ci wàllum santé publique foofu yi tamit gis nañ ko particulièrement ci Covid bi dem na demul mais si dañu xaw a ba léegi am ay idée arrêté ndax euh, ci wàllu yi nga xamante ni moom mooy yëngatu ci wàllum santé publique li tax ma revenir aat ci santé publique mooy c'est juste pour aborder question yi nga xamante ni moo jëm ci wàllum vaccination euh, à votre niveau comment est-ce que ça se passe surtout ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, ci à l'intérieur du pays waaw pour vaccination tuberculose parce que yàgg ko dugal mm-hmm. côté boobu amuñu ci problème. Mm-hmm. li parce que li ñu aidé itam mooy liñ daan gisee ni yow tey su sa doom juddoo ñu ne demal ba sept jours nga ñëw ñu vacciné ko wala demal ba ñu xaar ñu regroupé xale yu bari ñu vacciné léegi loolu dañ ko bàyyi. Mm. xale bi su juddoo si maternité bi balaa moo na ñu defal ko BCG. Ah, waaw non non non non non il faut communiquer avec les parents. parce que ñëpp am na am na programme élargi de vaccination mooy programme TEV bi nga gis bi bu nga xamante ni moom programme yooyu itam. ci biir euh, boobu mooy lutter si yëpp ba nga xamante ne dinañ def vaccination mm-hmm. loolu moo tax il faut informer les populations du ma ne amul problème de si gox goxaat yi mm-hmm. parce que comme ni am na ay euh, am na ay euh, am na ñenn ñoo xamante ni ba tey dañuy bañ vaccination waa mm-hmm. mais da ngay dem waxtaan ak ñoom soo waxtaan ak ñoom jàllul da ngay dem xool comme li ma la wax rek secondaire bi leen mën a parfois di nga dem si imam ba imaamu koñ ba moom moo lay aider ramener ñooñu bañ ñëw vacciner seen doom mhm. parfois nga dem ci curé ba mhm. parce que foofu euh, village chrétien la su curé bi waxee day yomb mhm. waaw day yomb ñu ñëw vacciner parce que itam xale yaa ko war a xale xale wu askan bi la du xale wu benn nit du doomu benn nit te xale jëlul décision boppam man parent warul ko jël décision ne du ma ko vacciner mm-hmm. boobaa yow da ngay def ay jéego jéem a xool ni ngay def ba nga xam ne di nga mën a aar xale boobu nga xam ne amul décision mënul wax buum ma vacciner wala vacciner wu ma mm-hmm. waaw da am foo koy jaare ci chef de village ba parfois comme ni nga wax ci ci su jëkkër ji li ci ëpp xëy na jëkkër ji mooy bañ wala mm-hmm. kii nga xam nan ngay kan moo influence ci jëkkëram nga dem jaare foofu parfois dinañ nañ dem ba dañuy dugal autorité locale yi sous préfet yi dañuy dugg si parce que nañ ne tel village xëy na dafa am problème dañuy bañ vaccin bii tel mhm. boobaa nag sous préfet am na rôle bu muy joué médiation dem waxtaan wax ak population yi ba gindiwaat leen ñu ñëw su demul parfois préfet bi dina agir comme li ma wax rek lépp la médecin chef de région bi day agir soo amee yenn problème santé publique yi yenn zone bañ euh, ñu am fa ay problème organisation la c'est toute une organisation mais comme li ñu wax doo forcer da ngay waxtaan mm. da ngay counseling maanaam il faut nga waxtaan ak nit ki tegal ko li baax ci li mu war a def geste parce que nit ki tant que gëmul li ngay wax du adhérer mm-hmm. c'est obligé de lui montrer ban bénéfice moom la ciy tirer communication looloo ci am importance mm-hmm. doo yem rek ci wax euh, ku feebar na dem faju mais da naan soo fajoo tey ban bénéfice la ci jële mm-hmm. day tax tey su wéree mu dem liggéey su liggéeyee day am xaalis day dundal njabootam mhm. su feebaree tey du du dem fenn kon du am bon il faut ki nga xamante ne moom ngay waxal mu gis ci boppam ci par rapport ak li nga ko bëgg a Euh, euh, tey boo ñu doon defal une euh, petite évaluation wala benn état des par rapport ak politique bi nga xamante ne état bi na ko ngir jàppale ñi nga xamante ne am jàngoro bi di tuberculose lan nga ñu ci mën a wax perspective ak lan la ci jot a def ak lan ngeen yaakaar ne bu ko defoon tey lim bi dina gën a wàññi. waaw état mi dugal loxoom bu mm-hmm. baax a baax. Mm-hmm. waaw parce que déjà comme moo créé programme national de lutte contre la tuberculose depuis quatre vingt cinq mu mm-hmm. ngi existé fii moo ko créé ëpp na trente ans mm. pour ñu mun di xalaat di saytu xam feebar bi beneen bi mooy itam garab yi faj forme tuberculose simple bi état moo koy jënd moo koy jënd ci xaalisam may ca askan gi réactif yi nga xamante ne tamit moom la ñuy defee analyse yi pour xam ndax doomu jàngoro nga am état jënd na ko état moo recruté ma ñun ñii moo ñu recruté médecin pour ñu mun dem di wax ko ci konkoxaat yi ak di xalaat politique parce que ñun lépp suñu liggéey mooy bind bind document yi bind document yi daan ne ah lii ak lii ak lii la ñu war a def tasaare ci dëkk bi yëpp ba nga xam ne ci nekk tey Kédougou niñ koy fajee noonu la ñu fajee ci nekk Dakar mm-hmm. maanaam ñëpp ay yem santé moom comme lu ñu wax c'est un droit pour tout le monde mm-hmm. donc ni ñuy fajee ci nekk Dakar ci gën a ëpp xaalis moom la ñu war a fajee ci ci gën a néew aussi xaalis loolu yëpp état def na par rapport ak ça mm-hmm. léegi euh, effort yi ñu war a gën a améliorer mooy dem ba nga xamante ni dinañ jël yëpp parce que am nañ tam ay partenaires yi ñu jàppale ba tey tey Fonds mondial moo ñu aidé pour médicament yi nga xamante ni mooy faj bu fonds mondial moo koy jënd état mi si dans disposition wu euh, jëndi garab yooyu kon côté boobu am na ay jéego yu ñu war a def itam euh, analyse bi maanaam dina expert yooyu nga xam ne ay cartouche moo koy doxal pour wane ndax yow forme bu ës bi nga am ndax niñ koy xamee day wuteeg beneen bi niñ koy defee boobu itam état bi mi ngi siy waxtaan ay jéego pour mun ko ko jënd comme li ma wax daal au fil des années à venir yaakaar nañ ni taxawaay état dina gën a bëri sinon am nañ ay partenaires yu ñuy jàppale comme li ma mooy Fonds mondial mm-hmm. mooy Action Damien daf ñu jàppale si forme bu aussi tamit lu bëri mm-hmm. bëri plan international maa ngi koy wax mooy lutte communautaire bi maanaam relais yeeg bàjjen gox yi ñoom ñoo leen di jox euh, xaalis ba nga xam ne dinañ a am paas mun dem xooli maladie ba seen biir kër waxtaan ak ñoom dem xooli na amul xale yu ndaw ñu génne leen pour aar leen balaa ñuy am euh, feebar ci dëkk loolu. Mm. Euh, juste ma rebondir rek par rapport ak euh, forme bi nga wax ni moom mooy forme bu ës bi Fonds mondial xam naa moo leen di jàppale wala moo leen di jox garab bi tey ndax ñi nga xamante ne ñoo am forme boobu du ñuy farataal di am rupture de de de de de médicament d'autant plus la déggee bu baax mooy du médicament boo xamante ne daf mel ni comme paracétamol wala ay Efferalgan nga xam ne ngay dem ci pharmacien bi mu jaay la ko am déet. waaw waaw nu ñuy def ba nga xam ni malade yi dañu am rupture mooy balaa ngay aarale malade bi. Mm-hmm. te lee woon am nga traitement am ba fin ba am nga traitement wu huit mois am am nga traitement wu un an am nga deux ans. Mm-hmm. kon léegi yow te loolu yëpp pour nga def ko yow ana amont balaa at bi di ñëw. ngay prévoir ñaata malade la dëkk bi war a am si si si forme bu ës boobu léegi nag en fonction de nombre de malade boobu ngay jënd traitement bu doy ngay wax Fonds mondial mu jàppale la nga mm-hmm. jënd traitement bu doy pour ñi mm-hmm. nga teg di xaar mm-hmm. loolu mooy indi nag itam su dee cas yi génnuñu muy am ay péremption de médicament fu mu ni nii actuellement amuñu problème pour approvisionnement médicament première ligne yi fu ñu toll nii mi ngi ñëw normal am nañ ci stock bu doy médicament deuxième ligne yi aussi mooy euh, bi faj forme bu ës itam am nañ ko mais le problème mooy génne malade boobu moo def malade yi ñeme xam ne fiñ fakkasee dañu war a dem faju ji ñun itam ñu dem dem ba ci askan yi di xam ni que parce que ci am forme bu simple bi soo ko soo warul parfois forme bu ës bi ko ci gis mhm. donc kon c'est important aussi ñu dem di xool di gën a seeti suñu malade yi gox goxaat yi a travers médecins yi fa nekk à travers infirmiers yi ci nekk ba nga xamante ni ñi am formbose bi dinañ génn ñu ñu faj leen. Mhm. pour bañ am prévention garab yooyu. Euh, ñu am formbose bi. Mhm. docteur euh, euh, waaw waaw waaw am nañ seen estimation. Mhm. chaque année. disons téeméer mooy cent dinañ dem ba ay trois cent cas trois cent cas la ñuy xaar. pour ñi ko am. atum ren atum daaw mooy deux mille vingt et un bi. soixante dix neuf cas la ñu la ñu détecté mhm. ça veut dire que en principe su dee estimation yi baax na am na deux cent cas yoo xam ne ñun gisuñu ko te comme li ma la waxee rek forme bu ës bi mhm. forme bu simple ñoo ñoo yem mandarga ñu ñuy feeñoo munoo xam bal la il faut nit ki ñëw nga xool ko defal ko analyse yi war pour nga mën a xam ni moom la Euh, waxtaan wi am na solo waaye dafa mel ni li ñu cërale ci waxtu bi yegg nañ ca docteur Tacko Ali Ba euh, lan ngay wax euh, ci auditeurs yi ñu doon déglu depuis dix-huit heures. waa kay jërëjëf madame Fall kontaan naa si émission bi si invitation bi li may dénk askan bi daal di ko dénk di ma dénk man sama bopp di ko dénk samay mbokk yi ma gën a jege ak askan bi yëpp mooy ku si sakkat ku si sakkat rek bi def li ëpp fukki fan ak juróom. daawal si béréb fajukaay bi la gën a jege soo fa demee dinañ xool ndax tuberculose la te su dee moom la li si war a nekk dinañ la faj su dul moom itam feebar bi faju bi nga yelloo par rapport ak li tax ngay saqat noonu dinañ la ko euh, fajal kon loolu daal mooy sama maître mot mooy que ni que askan bi xam ni feebar bi mi ngi fi mais nag traitement bi tamit mi ngi fi doo ko fay suivi bi six mois la soo fajoo normal da ngay wér sa jiiru dund doo ko amaat tant que keneen wàllu la beneen bi mooy pour aar bi ma la wax moo ëpp importance nañu ubbi néeg yi nañu ubbi kër yi di bale ba mu set di aéré maanaam di ubbi fenêtre yi ngelaw bi di dugg di ëpp naaj bi di dugg loolu suñ ko defee incha allah feebar du dugg ci biir sunu kër yi. Eh, léegi bokkoon na ci sa plaidoyer bu eh, ñu leen mënoon yokkal un tout petit peu eh, par rapport ak budget wu communication bi ndax feebar bi dafa laaj plus de communication ak sensibilisation donte nag am na ay jéego yu am solo yu ci def waaye bu ngeen amoon ay mesures d'accompagnement jëm ci wàllum koom-koom aussi ça irait beaucoup plus mieux. waaw am na am na solo. am na solo ñu maa ngi lay jaajëfal madame Fall yow yaa ngi waxal suñu ay problème <laughs> waaw te yaakaar nañu loolu itam euh, ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. su ñu amee budget bu conséquent parce que communication yombul mm-hmm. il faut nga déplacer il faut nga matériel matériel de sonorisation parce que war nga sax am kaar buy rouler di informer nit yi ci mm. di dem tay tey mu dem sikap tey mu dem feneen wax am na ay stratégie yoo xam te bëgg nañ ñu ci jàppale aussi ñu koy def gaa mm. mooy sensibilisation ci biir prison yi mm. parce que prison tamit zone yu fermé la waaw waaw zone bu fermé la su feebar bi duggee te wàll prisonniers yi te prisonniers yi dañuy génn suñ génnee dañuy dem seen askan kon ñu génnee dañuy dem wàll seen waa donc yooyu yëpp ñaan nañ yàlla euh, sensibiliser kii bi euh, budget bi gën a takku mhm. pour ñu gën di sensibiliser ci zone yooyu gën di sensibiliser ba fu gën a néew ci ci population mhm. Mhm. Eh, eh, sant ko gërëm ko moom mi nekkoon tey suñu invité eh, muy docteur Tako Aliba fàttali ne docteur Tako Aliba médecin spécialiste en santé publique waaye tamit nekk responsable suivi évaluation du programme national de lutte contre la tuberculose mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon déglu émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bassir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité.